mais est-ce bu président ne day dem nga yaakaar seen camp dina dina continuer di garder cohésion nga yaakaar seen camp du xar du am ñu bari ñoo xam ne euh, dinañ leen bàyyi. waaw xam nga man sax yaa ngi may wax sax affaire ay le mandat. Hmm. Euh, mandat xaw ma du yàlla mandat waykat yu perte yooyu ko mandat du fi amee ñetteelu mandat jàmm ko gën xaw ma non jàmm xam nga mooy lan yow sa wàllu boobu boo toogee nit tooñ la wala mu gaañ da nga dem ci tribunal am ay magistrats yu lay àtte du dëgg. Hmm. borom këram bu ko locataire fayulee day dem fële jëkkër ak jabar bu ñu amee problème bi ngi dem tribunal fële liggéeykat bi bu bu ko maanaam njaatigeem dàqee day dem tribunal du travail. Mm-hmm. Maître Dundoy mon grand am na ay jamono bi taxaw ni le deuxième mandat ou troisième mandat ou deuxième candidature mën na am waxu fi na ko wax na ko. Mm-hmm. keroog wax na ko mais le droit en fait elle a pensé elle n'est pas statique elle dynamique. am na ñu tax ñoo xam ne ñu ñëpp am nañu xam-xam a ah, ñuy wax ni warul am war na am mais leen mooy am lu koy àtt xam mooy lan. Hmm. ki nga xam ne bi ñëwee troisième mandat du fi amee ma ànd ak sama xarit yore suñu kii gàddu xaw ma ni mer gàddu xaw ma dem ba foofu. Hmm. ñaareel fan mu jóg toog nga écouté nu mu mën a demee ñun on aspire à diriger un état conseil constitutionnel wax na loolu. nañ fa dem parce que ñun bu ñu war nekk président foofu la ñuy waatee donc man sama wàllu boobu nee naa la man góoma d'abord ay limitation de mandat moi je suis un libéral lu tax c'est pas scientifique Abdou Diouf ñaata année la yore le pouvoir Et vous oubliez toute la lutte qui a eu lieu pour euh, en mais, arriver mais, à une limitation euh, du nombre de mandats de la durée des mandats. Mais cette lutte-là, tu y as pris part euh, yow tamit Djibril War de renoncement parce que arrangé la ah tu étais au PDS au côté de Ablaye Wade waaw may ma may la waaw kaay ma may la tuuti rek Ablaye Wade bu muy ba ñu constitué def na troisième mandat day def def mandat est-ce que fekk na est-ce que tax na mu gagné donc c'est pas scientifique ma chère sœur Abdou Diouf avant muy nekk président pendant vingt ans ñaata am na nekk premier ministre la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par la voie des urnes ñooñu taxaw deux tonnes du trois pelé M24 M23 bëgguñu jaay troisième mandat dañ koy tere bu ñu amee seen dënd ak sa ay sabar dañ ko foor bu baax dem gis les artistes fecc ñoom